atum 2021 ba lu toll ci fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakkan est-ce que du foofee la ñu jëmaata ab laaj la am na ñenn ci askanu Sénégal ñoo xam ne njort nañu ne li fi xewoon weeru mars atum 2021 lu ko gën a lu ko gën a war moo nar a am ci réewum Sénégal ñenn ñi njort nañ ci biir réew mi quotidien ne Sénégal ci guuta ci musiba ma bu kuma ci njombe goo xam ne sala dox jëm nag te soo moytuwulee musiba mën naa am ndax ñii nga xam na ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu sonn nañu tay nañ damm nañu dee nañ ci jaay doole gi nga xam ne moom la Macky Sall nekkee ci na ay sénégalais yoo xam ne dañoo nekk say jafe-jafe yoo xam ne maara détaal dañu leen a seetaan loole nag moo tax dëkk bi jamono ji mën naa dugg ci giraawaali gu tey waara doy waara yéen kaay gi xëy fësal ci mu njëkk dem vendredi de tous les dangers tey ji ajjuma la joo xamante ni lu am ci réew mi ci ay jafe-jafe ci ay giraawaal bu mu bett kenn lay raam sa ñag ba la jëmt bu fa kër du baax yéen kaay gi di nee na tension bii nga xam ne moo am ci réew ñoom sénégalais ana kan mooy wàcce température bi ma ne la tension bi jamono ji yëg na ba maara day tale kan moo koy wàcce ci réew mi yéen a kaay gi di enquête nee na nag jamono ji sénégal demul ci nga dikkul mbay laara senegal ci impasse la nekk nan la ñuy def ba génn nag ci guuta gii nga xam ne moom la ñu duggoo loole la journal bi di enquête xëy di laajcaal yéen a kaay gi di la mandat xëy fësal ci xëdd mu njëkk nee na est-ce ko ñu dàq li nga xam ne mooy élection législative yi ndax nag jamono ji réew mi tension bi bëri na loola te nag lu ne mën am ci réew a kaay xibaar naan ñu bu ñu waxantee dëgg ndakaaru ma ngi ci tension ndakaaru ma ngi ci tension yéen a kaay gii di leen foo xëy ñu xibaar naan ñu réew mii di Sénégal nag bu tàkkee na leen leer ne pouvoir bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk bëgg di écraser seeni adversaire luy njiig ñoom ñooy njàkk pouvoir bi état bu Sénégal bu réew mi tàkkee ñoom la yéen a kaay gii di leen fo moo xëy fësal ko ci mu njëkk waaye tamit nee na institution yi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum élection yi ñoom tim bu Sénégal tàkkee ci la ñu bokk ministère de l'intérieur bu Sénégal tàkkee na leen leer na loxo mi ngi waaye tamit direction générale des élections moom tamit bu mi tàkkee na leer na loxo mi ngi ci biir waaye nag conseil constitutionnel bu mi tàkkee na leer na loxo mi ngi waaye tamit ñii nga xam ne ñooy opposition bi xam na ñoom tamit dañu koy tàngal ba maara day talee mi tàkkee ñoom tamit seen loxo mi ngi ci biir gi de la turbine ñu koy fekk fa Boubacar Sadio xam ne ay jamono féete ca wetu askan wa maanaam Boubacar Sadio nee na armée bi naka li nga xam ne moom la war a def mooy dem féete ak askan wii ndax foofu mooy côté bu baax bi yéen a kaay gii de la sa xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy société civile bi jamono ji nag ñoo ngi dox tànki jàmm yéen a kaay gii de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu ndakaaru ba sigi coor jamono ji nag tension bi bëri na lool ndax fi nga xam ne mooy sigi coor foofe nag askan wa ñoo ngay waajal seenu rassemblement ndax ñoom tim nee nañu nag tere gi nga xam ne tere na ko seen marche boobe nag ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangoo lekk yéen kaay gi nee na di Ziguinchor ñoo ngi toog ci ak giraawaal yi ci ak musiba ma bokkumba waaye nag jamono ji li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci Ndakaaru ak sa Ziguinchor mooy état bu Sénégal presque nag dafa indi état d'urgence sécuritaire yéen kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa Barthélémy Diaz ak Guy Marius Sagna ñaar ñi nag nee ñu na saf na saf na safa safa safa ñoom nag nee nañu bañu ñu ci dara danañu amal seen marche par force mu neex Macky Sall ak mu ñàkk koo di source xëy duñu xibaar naan ñu bisub cooki baa ngi nii bisub jàmmarloo bi tey ji la yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na vendredi à haut risque yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu nag fukk ak juróomi réew yi bokk ci CEDEAO ñoom ñëpp nag dañoo taxawoon waxtaan ne dañuy defar ab protocole bu ko defee fukk ak juróomi réew yi yëpp nag daa di signé ngir nag limitation mandat maanaam dañuy signé ne kenn amutul sañ-saña def lu ëpp ñaari mandat loolu la fukk ak juróomi réew yi bokk CEDEAO waxtaane woon waaye nag am na ñetti réew yoo xam ne ñoom dañoo lànk kanaare bañ koo signé journal bi nee na Sénégal la ak Côte d'Ivoire ak ñi nga xam ne ñooy waa Togo yéen kaay gi de l'info nee na nag lii mooy firnde la ne Macky Sall dafa bëgg a def ñetteelu mandat ndax waa CEDEAO dañ koo wax na ko Macky Sall signeel ne nag limitation mandat ñaari mandat kenn mënutu koo weesoo Macky Sall lànk ba tëdd sanaaj wa moom ak Alassane Dramane Ouattara ak Faure Gnassingbé bu Togo yéen kaay gi de record Patrick Vieira entraîneur bu Crystal Palace nee lu jëm ci wàllu